contribution yi ni ñu ko waxee woon eh, Seydou Moustapha Sy Abdoul Aziz Oustaz Lamine Mbaye Ahmed Taqiy Kane Oustaz Khalifa Lo Oustaz Mouhamed wax ne nag ñu ngi ñaan ñi nga xam ne ñoo war a def seen kii tënk ko ci ñetti minute loolu la ñu ñaanoo ñi nga xam ne ñooy joxe seen contribution incha allah سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بالهدى إلى يوم الدين nu ngi feeñal orma ci sunu wajur wi fi teew di Sëriñ Babacar Si El Hadj Aziz radiallahu anhu di ko béggee di ko sant itam ci woyof gi mu am ñëw jëmmal nu bis bi fii nga xamante ni moo di xadara malikiya nga xamante ni à la source xadara malikiya à source ñu am ca recteuru institut islamique bu xadara malikiya mu ñëw teew teewal jëmmal xalifa bi jëmmal rakkam yépp sëriñ abdul aziz sëriñ babacar si mouhamadul mansour alxaaji malik abdul aziz mën naa wax ni tey am nañu lu rëy rëy rëy wa hada ma aradnaahu bi hada sabab li ñu bëggoon rekk mooy susciter waxtaan débat ndax ni ko mbokk yi waxe dañu ko door ci koor gi muy comité de pilotage bu ñu taxawal tudde ko ramadaniyat ci comité boobu lañu xalaate ni war nañu dellu si benn ci thème yi ñu doon waxtaane ci weeru koor bu ñu ko waxtaanee invité ay spécialiste ay docteur invité boroomi xam-xam ñu daje gëstuwaat bu fekkee ni mën nañu juralaat yeneen gis-gis nu am mbégte lool ci nii nga xamante ni noonu la deme ak teewaay bi donte la xat na fii péncu daara la saa su ne dafa war di jur ay débat ay weccoo ci xalaat kenn ku nekk di ko melal ngir mu jëmmal li nga xamante ni moom la boroom jëf laa yele woon këram mu di Seydi Hadj nu ñëw léegi ci waxtaanu Hadj Malick foog naa ni li ñu ci bëggoon rek mooy dafa am lu ñuy tuddee déviation mu am ci biir waxtaan wi nga xamante ni ni mu ko waxee léegi dàquñu mu am parce que Sénégal ku ne xam na ni réew mu ñu bëgg développement am fi la waaye boo seetee ñi ñu koy jàngal toujours boo nattee seen population moo ëpp téeméeri junni yoon sunu population ñii ñu nga ci ay centaines de million nun amaguñu lu dul def naa démb la ñuy doog a publier les derniers chiffres du recensement bi amoon ci treize millions la ñu yem treize ñu wax la ni laa yemale ko fa yemale ko fa mënul nekk nun dañoo gëm yàlla dañoo gëm li mu jàngale ci alquran li mu jàngale ci alquran wax na ni na ngeen di jur ngir ëllëg mu nekk puukare bu may puukare woo moom Seyduna Muhammad loolu muy puukare woo mooy ñu xam ni njabootam ñu ngi nii waaye njaboot bu ñu ko tuddee waxuñu seulement quantité qualité la ñu wax ndax El Hadj ñi mu indi ñépp ci ay anbiya wa rusul seen ñaan bi ñu demee bay tàllal seen loxo yàlla may leen dañoo ñaan yàlla may leen une progéniture de qualité comment peut-on pouvoir demander ce don de Dieu mu di ko maye nga ñaan ko ni ko may ma mu di la ko may ba pare nga di ko yàqal kon danañ bëgg nit ñi dellu siwaat ci ni ñaan yooyu yëpp waxuñu rek na bari na bari na bari na bari naam waaye na nekk qualité qualité ba ci yar ba qualité ba ca jàmmi yaram qualité ba ci xalaat yi qualité ba ci teguwaayu dund yu leen mën a may seen dund dootul dootul dootul toskare parce que jël njaboot ñaan ko ba yàlla jox la ko ba pare te yow teguloo ko ci ay teguwaay yu ko mën a may tëw féex bu mu dunde ba faw kooku itam damay wax ni day mujj wëlbatiku nekk poids waaye nekk bàkkaar loolu moo tax thème bi ñu indiwaat ko pour waxtaanewaat ko fii ci xadara maliki yi bu ñu ko waxtaanee it mën naa wax ni position yi ñu fi wax yépp position wu ay boroomi xam-xam yu jiitu ñoo ko indi woon xoolal lu ñuy pratiquer ci jamono yonent bi ba léegi sallallahu alayhi wa ca Madina ca Madina il y a une planification islamique qui se faisait avant que ñu ñuy indil les thèses malthusiennes qui voudraient qu'une progression arithmétique et une progression géométrique nekk yoon yi nga xamante ni ñooy taxaw pour pousser nit ñi ci ñu xalaat ni dañoo war a bàyyi jur foog naa ni c'est pas Malthus qui nous dictera sa loi sur li nga xamante ni mooy la marche des peuples vers un idéal de vie du Malthus moo nu koy digal ko defee nag loolu mu ñëw ci nag ci déviation yi nga xamante ni dañ ko tàmm gis ñu di ko waxtaanee waaye di ko wéyal et surtout je voudrais attirer l'attention des jeunes yi koy suivre nga xamante ni ñooñu ñooy les couches les plus vulnérables les couches les plus sensibles ñu di leen wax ni leen waaw mën ngeen dem seeti docteur bi mu diggal leen non l'islam buy wax planification kay ñaari borom séq sëy ñoom lañuy wax waxal en dehors du mariage on ne peut prétendre une planification mënul ne selon les liens du mariage bu defee loolu kon ndaw yi waxtaane thème yu mel nii lu tax sensibilité bi ci nekk mooy ki nga koy wax bu amul xàmmee day foog ni dafa war a xëy rek dem wuti ay capote anglaise wala bu dee jigéen ji dem ñu defal ko stérilé parce que mën na sëy te du am doom parce que loolu la ñuy génne ci seen xalaat te dañ leen war a jàngal ni bu ngeen tolloo ci war a dugg ci sëy yoon wi leen lislaam wax mooy ngeen organiser seen seen yoonu doxalin ba nga xamante ni pécc xoo du am yàqu-yàqu du am toskare du am man daal bëggoon naa faneen fu ñuy waxtaane thème bi nañuy gën a attirer attention wu ndaw yi ci ñu xam ni thème bi ñaar ñi koy séq du ñoom waaye ñaari way dencante ci sëy te néegu sëy moo koy waral ko defee nag ñu sant alxaji Malik ci xalaat yu leer yu rafet yi nga xam ak gëstu bu am solo bi nga xam def na ko sant alxaji Moussa Mousse defe naa fii njaboot alxaji Cheikh Fall ku ko indi ci ëttu maam Seydi Hadj Malick defe naa amul lu ñu ciy wax dafa ñëw ci péncam Pape Serigne ñu wax la ni monsieur mii moom moo sabab lii yàlla dafa dogal nu tase ci benn liggéey bu ñu doon def ci institut islamique ma gis wax dëgg yàlla mu débattre thème bi du sax débattre dafa doon rek wane li nga xamante ni ay boroomi xam-xam ci diine def nañ ko gëstu ko ci thème bi def ko ay jàppo projection diapositive boobu ba mu ca pare mu rafet lool ci xalaat ni mu ko indee bi ñu defee nag ramadaniyaat yi fii mu am polémique tuuti ca mujj ga ñu ni kon nag man maa ko woor ci téléphone ni ko daal dañu bëggoon organiser lu mel ni mu rafetlu ko yóbbu leen wax dëgg yàlla ci mbokk yu baax yi nga xamante ni tey ñoo déplacé lu bëree bëri ci li ñu yéwénalal organisation bi indi ko Tiwaawan presse bii nga xamante ni ñoom ñëpp kenn ku ci ne def nga ci sa euh, ndimbal pour que mu mën a nekk lu ñuy wanewaat ci yeneeni pénc ak ci yeneeni réew loolu moo tax kon danañ ko sant santaale itam réseau bii nga xamante ni ñoo ci yëngatu tabarakallahu ñoom it ñu ci bëri ci ñoom ñu ngi fi ñu wax la ni daal fii la jaare Ousmane euh, Ousmane Ndiaye docteur Ousmane moo doon def waxtaan wi keroog ci Ramadan yeeg mu xaw a bëri lool ay xam nga fu ay oustaz arab daje yenn saa yi kenn ku ci ne masala yi day bari kenn ku ne bëgg a indi kenn ku ne bëgg taaj benn ku ne bëgg a dindi man leen kon nag du gën nañuy def baneen bu gën a yaatu boo xamante ni xëy na sax mën nañu amaat baneen bu gën a yaatu bii waaye bii nag ñu doyloo ko pour le moment ndax mu tëj ramadaniyaat yi ñu ubbiwaat yeneen paax jëm ci kanam loolu rek mooy li ñu bëggoon a dafal jéggalu bu baax a baax ci kaddu yi ndax waroo toog ñuy yëkkati kaddu sunu orma ci yow joxewu ko waaye sa mbaax nag moo nu ko may yal na la yàlla yàggal ci sunu kanam yal na la yàlla gën a dëgëral te mottali la sa mébét sa mébét ci mag yu baax yi topp ci yi nga topp ci seen kanam yàlla mottali la lépp bin najaax wal aafiya wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh بسم الله الرحمن الرحيم ñu ngi nuyu sëriñ bi suñu sëriñ sëriñ Baye Abdou Aziz ak kilifa yi fi teew di rafet di rafetlu journée bi ak ni mu déroulé waaye itam wilaaya Cheikh El Hadji Malick bi ci feeñ ci dernière minute su ñu woon ci ci saawiya bi ci xadra bi ñu ne saawiya Cheikh Seydi Hadji Malick dafa daganal planning planning familial yeneen taalibe Cheikh Hadji Malick yu nekk ci yeneen yeneen saawiya danañu yëkkati si yëkkati seen kàddu contre loolu li nga def soo ko defuloon yàlla dana la dal léegi tur yi ñu ko wutal mooy espacement tanzim euh, mun na tur yëpp bu yemee ci fadu bi rek ni ko docteur waxee des na ko mën a dégg des na ko mën a nangu waaye au niveau du Sénégal planning familial doxul dafa wuy noonu man lycée laay jàngale xale yi nekk lycée yépp ñi ngi ak jumtuwaay suñu doom ñi ngi ay capote ak ñu kenn xamul non seulement loolu mais dañ ko dugal ci programme bu lycée ñu leen di jàngal éducation sexuelle prof bi bu la nee tu libre pour dégg nga ak sa moromu góor mais nag nii ak nii ak nii ak nii ngay def doo ëpp dimension boobu mu am fii ci Sénégal moo tax réponse islam islam mënul nekk lu dul dafa xaram dégg naa fi benn bokk ci fan yi mu mu di ko wax insisté mais li mu wax dëgg la. niñ koy doxale fii ci Sénégal mooy li xalaat eh, fa tabarakallah foofu nga jeexale maa ngi wax la ni sax na ko waruma woon wax parce que li ma bëggoon li ma jàppoon ni su ma ko déggul balay dajabee tas danaa jël parole wax ko moom wax na jasakumullah ñi ngi sant ñëpp di sant itam mbokk yi borom xam-xam yi ñëw di leen nangul li ñu wax problème bi du seen problème problème bi problème mu état la moom mi ngi wax depuis quatre-vingt-quinze mais ñun depuis quatre-vingt-cinq ah ñu ngi def ay conférence fii ci planning familial te booba dafay am def nañ ko Fatick def nañ ko fu nekk parce que ah non état moom état laïque kooku moom lu ñuy waral état laïque la mais état laïque nag su bëggee def doxal li muy doxal nag utiliser pouvoir bi mu am ak pexe yi mu am mais bu mu ñëw danga ci xadra bu mel ni ah di jé di jéem a sàkk ñu waxal ko fi ne li nga bëgg li ngay def dafa daga waaw ñun d'accord nañu ci li yàlla tëral fii ci Sénégal état bi nekk état boo ay jullit la ko la ko daan président daal di jël ci suuf ñépp ay jullit lañu mais état bi du état islamique état laïque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 والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته fi ñëpp jaar rek lay jaar ci nuyoo ndax lu yàlla digle la waatul buyuta min abwaabiha lu ngeen di def jaar leen ko ca bunt ba te bunt bi tey mooy suñu nijaay sëriñ Bay Abdu bu ma nee suma nijaay rek moom xam na jaarale ci moom sama nuyoo jëmale ko ci kilifa yi yi fi teew yépp naam nag beral ci sama nuyoo ñaari jarbaat yu fi teew muy Cheikh Mouhamadul Moustapha Sy ak eh, Sidi Ahmed eh, man damay teg appellation yu fële mubaada tandimu nasl taxdiidul nasl dama koy teg fële ndax gis naa ni polémique bi li ko indi ma nga sosoo ca tur man damay indi nef ndax dama juddu fekk këru daara yi jaboot yi di ñëw ci sëriñ daara yi di wut lu téere nef sëriñ daara yi di leen bindal téere nef ñu di ko yóbbu di ko takk mu am lu muy def ci ñoom ci suñ daara jëfale danga nga daan ñëw sëriñ bi bind aayam walbati ko nam ko bëgg a walbatee dem ni la demal wut gën gu ñu bojj ba mu fëq ca taat wa nga lelli fa benn galan lëmas ko ci takk jox ndaw si mu dem la mu doon wut yàlla defal ko ko kër sëriñ yépp a koy def aujourd'hui téere boobu ñu daan bind am na fu ko sëriñ bi tegoon ba tax mu di ko bind parce que dafa doon wax ni kii di ñëw di wut téereb nef c'est parce que buy nàmpal day jàpp ëmb mu nekk loraange ci moom nekk loraange ci ki muy nàmpal nekk loraange ci ki mu ëmb mu daw ci sëriñ ba di bind lu ci téere sëriñ ba ba mu koy laata bindal téere xam na téere xam na la yàlla wax ba tax mu bindal ko ab téere téere booba nag ci wàllu nef ba tey lay wax moom lañu ñu moderniser tey jël téere ba teg fële indi beneen moyen boo xam ni la nga bëgg mën nga ko am te doo ko jaar ci téere bi man principe boobu laa gis ci planning familial c'est vrai au départ par par mal compréhension le planning familial am na nu ko nit ñi gisee woon xale ya ci ruuxaloo di jël ay pilule xale ya ci ruuxaloo te sëy sëyaanewun te planning familial dégg naa sëriñ bi léegi wax ko ni ñaari way dencante yi moo ko tax a jóg du dëgg ñaari way dencante yi nag bu leen loolu taxee jóg ba ñu dem ba gis ni njur mu jege bi mën na indi yàqu-yàqu ci wàllu wér-gu-yaram heureusement man bu ñu fi jóge ñu ni dem nañ kër ci El Hadj Malick ñu ni dagaluñu planning familial sans exception mais dama dégg ku ci wax rek ne sauf sauf boobu nag laa bëgg mu leer j'ai entendu sama jarbaat Moustapha Sy wax ni sauf en cas de nécessité médicale J'ai entendu également euh, Serigne euh, Maodo si wax ni suuf su fekkee ni loraan def ciy juddu defe naa ni sax ni jaay sëñ bay feelu na ko yëkkati loxoom ni bu fekkee ni loraange da ciy juddu ma daal di d'accord ci loolu ndax fa ma ne turra gayra baaxin wala aadin suñ borom nee na kooku fa laay ma alay kon en cas de nécessité médicale sanitaire mu wóor la ne lii su ma ci jógul am ndeete ay doom ndeete jabar mu wóor ma ne lii war naa ci jóg sama wér-gu-yaram la ñu waxtaan ci ñu ñaar ba d'accord ci yaakaar naa ni d'accord boobule bu ci ñaari wuy jur yu d'accordee loola defe naa ni ñoom bañuñu ko la ñu bañ kay mooy belangal ko ku nekk ñu jox la ci droit lu la neex def waaye damaa bëgg ngeen xam nag ni Euh, yooyu ci am ñay yore planning familial ne sont pas ñoo ñooñu ay mukallaf lañ xam nañ lañ leen togg ci jëf la dagan xam nañ ko la ñàkk a dagan xam nañ ko suñu fekkee loo xam ni wóor na leen ni seen yokk seen yoon nekku ca ñu jëfandikoo ko jëfandikoo boo xam ni euh, dañ ci am meru yàlla ñoom ñoo ko teg seen bopp ndax kat gis naa ni alcool wala wala diluant euh, leneen na ko tax a jóg alcool faj moo ko tax a jóg faj microbe diluant jaxase ko peinture moo ko tax a jóg waaye léeg-léeg nga gis koo xam ne day dem jënd ko di ko ginze di ci di di mandi di di dogale nit ñi di ci am daanu suñ borom bi subhanahu wa taala lépp loo gis rek day am ñuy ruuxaloo ca biir man daal fi ma bëgg a insister te foofu laay jeexalee moo di ni damay ñaan kër gi balaa ñu fiy jógee ñu leeral loolu parce que ñëw nañ rek ñu ne ñeet sont pas d'accord si nga seen baatu suuf boobu ngeen wax laa bëgg suuf boobu ngeen wax ni suuf en cas de nécessité ngeen leeral leen ko wax leen ni leen d'accorduñ ci métode yi wala d'accorduñ ci doxalin bi waaye nag bu jigéen bëggee loru su bu jigéen bëggee loru ci wàllu nef ñun d'accord nañ ci ndax dañ koy daal di yéege ca qaayida bay wax ni fa man itturra gayra baaxin wala aadin beneen bi ci des euh, ñu baal ma ko moo di dégg na ci euh, toujours sëñ Maodo mu indi ay ahadis yoo xam ni nee na daif la waaw man sax d'accord naa ne daif la parce que yër naa critères yi ñuy natte xadis ndax wér na wala wérul yër naa ko téere yi ma ci am fekk naa ci ahadis yooyu daif la tanaakaxu takaasaru fa inni ubaahi bikumul umama yowma alqiyamati ah mariez-vous faites beaucoup d'enfants demain j'en serai fier le jour du jugement waaye man li ma ciy wax loolu mooy même bu yonent bi ni woon bari leen yaakaar naa ni bari waayu qualité moo ko tax di wax waaye bariwaayu quantité taxul mu di ko wax ndax qualité lu mu tuuti tuuti tuuti tuuti su amee efficacité moo ëpp njariñ quantité lu mu rëy rëy te amul efficacité suñ borom nee na wa in yaku minkum ishruuna saabiruuna yaglibu mi'atayni une vingtaine de personnes de qualité efficace l'emportent souvent sur la quantité de 200 personnes ça vous êtes d'accord avec moi beneen bi ci des mooy euh, qualité euh, minoritaire mais ñoo xeex xare ba dara ba gañe ko xare ba Badar na muy toll yépp 313 ou 314 personnes ñoo gagné combien de millions de de, de combien de milliers de mécréants du dëgg te jàng naa ci ëtt bi parce que fi laa bokk te dama kontaan ci ni mbir mi dellu fii ma ni suñu borom daal lépp lu mu def rek da koy planifié sëriñ Saar Mbay moo jur suma ndey moo yore woon daara si El toog fii di firi ak di jàngale foo tollu di dégg baat bi loolu ku nekk xam na ko kon tey jii bu ñu jël suwaatee fii ñu nekk sëtam ñëw bokk ci débat yi dañ naan yàlla moo ko planifié loolu tabaarakallahu bu ko defee kon euh, ma bëgg rek wax ni euh, euh, nañu di insister itam ci li sëñ Moustapha si wax ci qualité nit ñi parce que dégg naa ci ibnu Duray di mu wax ni wan naasu alfun minhum ka waaxidin wa waaxidun kal alfi in amrun ana wax bu am solo noonu mu ne léeg-léeg nga def benn œuvre accomplie nga gis ko yéem ko nga ñëw tim ko naan ñaata junne nit ñoo réussir à faire ça mu ne bu ñu la waxee benn une seule personne moo ko def de par sa qualité sa compétence de par son efficacité mu ni nga bàyyi ni ko fa demati bërëb gis beneen œuvre bu ñu accomplir teg nga xeeb ko ba naan ne ban cagaras nit moo ñëw accomplir œuvre bi ñu ne la yée c'est une vingtaine de personnes c'est une centaine de personnes ñoo ko def kon ce qui veut dire que euh, man xadis boobu même si l'on supposait que wér na wér ba itam même bu wéroon quantité yaa fuus quantité bu amul njariñ lan daan wooy ngeddu bay ngeddu bay ku nekk xam na ko ca jamonoy cinéma fa la rakkaay ga nekkoon cigarette sa tux ma saaga ya loolu xam nga ne yontu buy tiitaroo du tiitaroo loolu kon man foofu laa ko jàppe ma leen di ñaan nag balaa ñu ngi fay jógee seen suuf boobu ngeen wax ngeen leeral ko gaa ñu yóbbaale ko sauf bi loolu nag moom il faut ngeen yóbbaale ko sinon rek di ngeen na di ngeen na généraliser alors donc sans exception je pense que euh, dafay xaw a doy

Et Mourman, pour man c'est une qualité. C'est une qualité. C'est une qualité. <laughs> voilà, justement. Lolo, <laughs> lolo, lolo, benen débat là, parce que moi je dis souvent, euh, laïcité, euh, d'avoir tungomonté ak neutralité. On ne peut pas tout le temps observer la laïcité par rapport à la religion, sans pour autant également observer la neutralité entre les chefs religieux entre les tariqa man foofu laa teg foofu laa teg mbir bi du dëgg kon je pense que euh, laïcité boobu ñuy wax xëy na euh, politique moo ko indi lu ñu doonnoo ci tubaab yi la mais war nañ ko xoolaat bu baax a baax a baax a baax a baax baax parce que mënuma digg laïcité ba pare tabaarakallaahu te bu dara desul lu dul feet yi jeng gi bari lool tabaarakallaahu la ñuy may ña nekkul ci suñu diine ci ay feet ci ay férié yu dul jeex ñun mënuñu koo fexe ba am ko donte sax ci tabaski la wala ci korité donc je ne peux pas parler de avec cette situation là. je vous remercie. mel ni mi ngi guddi ci jotaay baa ngi bëgg a yàgg ñu nuyu bu baax Seydi Aboubacar nuyu ci jëmmam xalifa bi ak rakkam bi tedd bi Abdul Aziz Cheikh Aboubacar Mansour Haj ak usra Seydi Haj Malick di kontaan itam dama doon wax mbokk yi ci jataay bu njëkk ba ni leen masala la boo xam ni dafay mën a dox ci ñaari wàll bayna muaaridin wa muayyid ki koy saxal na ko argumenté teg ko ci xam-xam ki koy dindi na ko argumenté teg ko ci xam-xam su boobaa bu ñu defee synthèse ku ci nekk nag sañ nga tànn la ngay ànd mu mel ni xadara bii ñu bokk xadara tënku la Cheikh Alxaaji Malik sos ko jël al aqida al ashariya ci tawxida jël al madhab al maliki ci ngërëm jël tariqatal junayd ci suluuk tànn ci tariqa Cheikh Ahmed Tijaani yi tënku boobaa léegi nag génn ko ci wax génn ko ci jëf moo tax man dama wax ni bu ñuy wax débat yu mel nii invité ci ñu bari la ñuy sóor ñi ñuy wax alawaam mooy ñi mënul jàng mënuñoo jàng mënuñoo bind ci ëpp ci ñi teew ndax ñoom ñooy al mustahdafuun bu lor bee am ñoom la lor ji di ëpp lu mu leen di mu mel ni lii xaaj Malik junju sànq ca Moustapha feddali ko mazhabul maliki am na lu ñu indi woon muy saddu daria te ñun ñépp yëgal nañ suñu bopp ni tahdi eh, planning familial tur yi ba mu amee ba léegi su amee ay njëriñ ci wàllu itam yennati nit wala ti ONG am na ay danger yu bari ci population yi ak njaboot yi ndax ubbi na bunt yoo xam ni tax na fo mi bari na lool ba ëpp ca ku nekk kenn dooturam la contrôlé su boobaa kon dañuy jox al mazhabul maliki mi ko tere dañ koy jox dëgg ci suñu jamono bi moo tax man maa ngi dellu si waat ni Cheikh Al Hadj dafa waxoon ni su ay waxi boroom xam-xam dajee na nga tànn ba ca sa sëriñ wax nga tënku ca te ñun mazhab bi ñu bokk mooy al mazhabul maliki moo tax ma wax Ousmane Ndiaye ma ne ko nag ñu at indil li imam Malik wax ci planning familial la ñu ca imam Malik wax ma ne ko dalay wóor ni mooy nekk sawtu xadara ndax ca la ñuy ànd ndax loolu moom lañ fi fekk te loolu mooy liñ continuer incha su ko defee kon loolu laa bëggoon ñu bàyyiwaat ci xel bu baax xam ni saddu zaria dafa am solo te li tax imam malik indi ko ci ngërëm bu caaxaan parce que ku yar ku nekk ak sa mu bopp jëlax yaa ko xam li tax cheikh alhaaji malik indi wasifa ngoon wasifa gannaaw timis diggante timis ak am na lu mu ci namoon am na lu mu ci bëggoon def saddu zariati itam bu ñëwee ci mazhabu malik am na lu mu bëgg a defar am na lu ko tax a jóg am na nag lu ñuy coow ci ni planning yàq na ko planning yàq ko famille yi chef de famille yi ñoo ko yàq ci seen bopp parce que ñu wàcc yoon wi nga xam ne ñoom da leen seen kilifa yi teg waroon teg parce que dañ digal ni qu anfusakum wa ahlikum naara boo amee njaboot nañ leen jàngal nañ leen yar su njàng mi yaree yar bi rate nu sa doom mel ëllëg ci penc mi su ko defee kon bari na loo xam ne yàq boo xam ne bu ñu ko jiiñ nef yeeg yeneen ak yeneen dañu ko jiiñ responsabilité parents yi ci seen biir famille loolu itam faw ñu di ko sóoraale ndax problème bu am solo bi ci des nit am na ñaar fukki doom ñëpp mokkal alquran ñëpp barkeel ñëpp am jëriñ ñëpp am teraanga àddina ak àllaaxira nit am na benn doom mu yées ñëpp bis bu ne mu yenu ko dóor ci suuf yenu ko yóbbu police su demee ba sàppi ko mu jël ko yóbbu ko ci ay néeg yoo xam ne dañ denc ay màggat wi denc ko fa mi ngi nekk ci tarbiya bi nga xam ne moo war a nekk rek su tarbiya bi baaxee boo amee fukki doom baax na boo amee ñaar fukki doom baax na bu tarbiya bi baaxul it benn doom bi ëpp na ci su ko defee kon loolu laa bëggoon ci xadrata cheikh yi ñu ñu ñu feeñal ko bu baax bàyyi ci xel ndax problème mu planning familial judd na bu yàgg booba ñu ñii ñu ndaw la ñu di ci coow ay boroomi xam-xam di ci def ay nadawaat ay colloque ay séminaire di di dëgëral di dàq te ku ci nekk am na loo indi ñi dàq baat bi ni dégg eh, Hajj Malik bind na ko dañoo njëkkee woon tanzim ba mu yàgg ñu xam ni coow bari na ci aalamul islam ñu indi tahdid waa tahdid la njëkke woon ñu dem ni xam ni coow bari na ñu indi tahdid ñu indi tanzim loolu loolu philosophie la stratégie la boo xamante ni alphase yi dafa jar di seet moo tax mos naa waxtaan ak benn naaru gànnaar mu ni ma ida kaana ida kaanat kalimatu tanzimi أريد بها المفهوم اللغوي فنعما هي وإذا وإذا أردنا بها الاستناد إلى فكرة الغرب ففيها تناقض moom noonu la ko gisee benn naaru gànnaar mu ni ma bu fekkee organiser naissance bi la Haj Malik wax na ko yàlla wax na ci ci bu yàgg alquran bàyyiwul lu mën a tey ak ëllëg maa faratna fi lkitaabi bi shay yàlla bàyyiwul dara yépp ay sharxa la leeral wala xam-xam ñëw démontrer mbir pour dëggale ko alquran mais amul dara luy ñëw loo xam ne dina mën a nekk luy weddente ak alquran su ko defee kon même su fekkente ni baat yi bari na coow ñi naan tax tahdiid la lu ci nekk am na ci loo xam ne mën nañ ko xam wala mën nañ ko bañ a xam waaye li ci am solo rek mooy ñu xam ni taalibe du koo ci mbedd te ñun ñi ngi nekk ci suñu xadara suñu kilifa toog ci mazhabul malik yi la ñuy sukkandiku ci la ñu tënku ci la ñuy nekk tey ba ëllëg insha allah kon nag loolu yàlla nañ ci yàlla saxal te yàlla nañ ci yàlla dimbale dàquñu nag xalaatu kenn ndax itam nit ku nekk libre nga ci tënku ci xalaatu mazhab bala neex waaye njaxase ci ngir itam Ousmane wax na ko sànq wax bu am solo la lu jar di bàyyi xel mag ñi nag daan nañ wax ni yàlla bu bëggee bind est-ce que planning mën na koo tee bind yéen jigéen ñi yéen a tontu gis naa kenn waxu ay jigéen ñoo xam ni gis naa leen seen làmmiñ ak sama nopp ñu ne ay la yewen di planning bi daf ma rëcc moo tax xadis bi mbokk mi junju sànq daf ko àggalewul wala boog riwaaye bi mu yam la waaye yonent bi teg na ci waa ji ñëwoon di wax ak moom ni ko ida arada an yaxluqahu ma stataata an tasrifahu li ko su yàlla namee doom di judd téeméeri moyen yoo mën a utiliser pour tax doom bi judd du jàll dama gis moo xadis bi sànq te indilewul cat li ma ne xaw ma dafa yem ci waaye wala boog dafa seet li li mu soxla rek ñu jël ko bàyyi waaye foofu defe naa ne lu jaroon a bàyyi xel la lu jaroon a insister la ndax yàlla itam lu mu nar ci doom juddu defe naa ne jëfandikoo kaay mën na tëlee mu juddu su ko defee kon Cheikh Al Hadj Malick nag d'accord na ci ñu dellu ci médecine bind na ko ci lettre nañu dellu ci médecine bu fekkee masala boo xam ni dafa laaj xalaatu médecine judd Cheikh Al Hadj nee na nañu dellu ci médecine waaye nañu nekk atibaa mawthuqina bihim loolu lu ci jara leeral la ati atibaa mawthuqina bihim na nekk ñoo xam ni li nga yëg ci sa diine ak sa ngor di ko dund boole nañ ko seen métier médecin boo xam ne tey politique plan politique bi ñu ko joxe rek ni ko doxale ko noonu rek lay respecté moom lay gën a sàmm ci sa diine moom lay gën a sàmm ci sa dox su ko defee moo tax mu ni atiba moo fukkiina bihim su ko defee sëriñ bi nag mooy jéggal loolu ci ku feebar lool lool lool dama doon doy doon ni sama mbokk yi wax waaye mënul woon ñàkk ñu dolli ci loolu yéen njaboot yi ngeen yóbbaale ni mazhabul maliki daal li Ousmane Ndiaye wax ci la ñu tënku dégg ngeen ko man mazhabul maliki ànd ci am na mag nag boo xam ne sëriñ bi nga baal ma ma tëje ko nee na man nit ñaa ngi wax ay planning di ko wax di ko wax mu ni waaye man maa ngi planning ndax maa ngi sorele sama njurul mbaa sama soxna ñu ngi ko seq di ko waxtaane ba am na nuñ koy sorelante te jëluñu pelil jëluñu kàpparo loolu nag ba léegi defe naa ne am na ñu ko mën a utiliser soril sa njur te doo jël pelil doo jël kàpparo bu fekkee mooy boobu mën na amit nag wax dëgg yàlla bu ñu ko dàq ndax jar nañu laajaat docteur kii jël pilule bu yàgg est-ce que du dem ba jur li Ousmane Ndiaye doon wax ak taqimul mu ëbbat est-ce que du ko jur bu yàggee di jël pilule bu lay tee am doom dina la tee ëmb di wala boo ëmbee mu yàq ko est-ce que du dem ba jur ak ta ak taqim al mu ëbbat est-ce que loolu du ko jur te nag kullu ijraat ah. sëñ Moussa Wade ne luy taqim mooy ñàkk ngërte gerte est-ce que loolu jël planning du yàgg yàgg yàgg du ko jur te bu fekkente ni da koy jur nag inna ijraa kulli amaliyatin tuattil al ajhiza tanasuliyata fa xaraam gis naa ko fa bind ñu di ko wax Cheikh Ahmad Mouhamad Assaf su ko defee kon ngeen baal nga asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu te lii mu wax mu ngi xaw ma plan ñu jugéewul ci marcus non je pense que peut-être mën nga ko waxee fii mais ñemewu ko wax mu université ñépp xam na ni dafa am deux grandes théories ñii ñu leen di tuddee les pronatalistes mooy ñi nga xam ne dañ ni dañu war a encourager nit ñi ñu jur ñii ñu leen tuddee les antinatalistes antinatalistes yi moom dañ ni déedéet wàllum njureel dañ ko war a arrêter kenn ko ko encourager d'une manière générale loolu lañu wax ñooñu a dañu am seen sëriñ dafa am koo xamante ni moo ñëkk a théoriser affaire bi kooku ñu ngi koy tuddee Malthus c'était en 1798 benn ouvrage bu mu bind euh, ouvrage bi mi ngi ko tuddee essai sur le principe de la population mi ngi ko publié en te li may wax sax mooy planning ñu ngi naan médecine médecine médecine mais li ñu xam mooy OMS yóbbu projet boobu noonu yoonu médecine au début nekku si woon c'était un projet c'était c'était un thème qui intéressait les démographes Malthus lii bi mu koy bind nekkul woon économiste Malthus bii bi mu koy bind démographe la woon après nag la commencé nekk économiste bay commencé jàng l'histoire de l'économie loolu dafa baax ñu fàttali ko après nag pour jéem a lay mbir bi jéem ko lay ci lañ fi dugalee affaire médecine mais du woon yoonu médecine nekk ci woon au début c'était un thème qui intéressait les démographes ensuite ci lay économistes yi dugg ci te Malthus bi mu koy def c'était un rapport bàyyi ma ci français yi sax euh, li ko intéressé woon mooy euh, diggante wala rapport entre l'économique et le démographique l'accroissement de la population et la production alimentaire ou bien la production économique la doon loolu moo ko intéressé bi muy defee gëstu nag ci la dem ba xam ni population bi ni muy yokkoo koom bi yokkoowu ko mu ni kon nañu limiter naissance bi loolu ana ana ana na médecine ci loolu noonu te li ngeen xamul mooy projet bii mais OMS yoru ko woon fi ñu yàpp moo ko yoroon fi ñu yàpp moo yoroon projet après nag ci lañ ko commencé dugal affaire Euh, affaire affaire OMS yi te li may wax mooy thème bi au début tudd woon sax même planning planning familial mi ngi tuddoon association britannique pour le contrôle des naissances mais après lan dem da gis connotation péjorative bi ci am parce bu ne contrôle des naissances am na ñoo xam duñ ko nangu ci lan changé terme bi tuddee ko family planning association muy association pour le planning familial boobu ñu ngi ko def c'était en 1930 kon affaire bi lu am histoire la ñëpp xam nañ rôle bi nga xam Margaret Sanger mi nga xam xamante moo nekkoon États-Unis daanaka mën nañu wax moom mooy euh, ki nga xam ni féminisme aux États-Unis comme nii moom moo ko promouvoir aux États-Unis mais gis nañ rôle bu ci joué te aussi tamit euh, gën na complexe mais ni mu demee nii la moo tax mais doon na baax trop ci thème bi ñu invité invité ci les démographes parce que c'est un thème de démo des démographes et non pas des économistes sànq nag euh, bi ñuy wax tamit wax nañ sax ba yaakaar naa docteur moo ko wax mu ni le planning familial ne ne euh, concerne pas les couples je parle des faits est-ce que planning familial non je parle des faits et non pas des textes ñen ñooy appliqué familial mais demal ci école yi mais demal dans les lycées mais yaay gis ñoo xamante ni suñu am jëkkër ñoo dafa planning ni par exemple les méthodes de planning familial mais dañu bëri mais condom féminin ci la bokk préservatif ci la bokk ñun préservatif au début ñu ngi ko doon jaay ci ci pharmacie yi mais léegi boutique yi sax ñu ngi koy jaay dina ci baax trop daal ñu gëstu li laal mbir yi ba te pour terminer maa ngi invité euh, sëñ Maodo mu lire le rapport de euh, Kessinguira le rapport de Kessinguira boo ko liiree di nga gën a comprendre le thème du planning familial